mbokk yi gannaaw bu ñu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole jëkkal tomb bu ñuy fàttalente dañu koy aj ci lenn ci am solo gu digle ak tere am ak lenn ci yi tax ñu war koo def ak kan moo ko war a def ku ko warta def digle ak tere gannaaw bu gëm yàlla weesoo doonte lef mu gudd la waxin la gëm yàlla gu dëgër nit ki ci jëmmi boppam ak ñi ko gën a jege la cay topp mooy gannaaw bu jàlleek kum ca mën a woo ba nga bokk kook moom nga ñëw bokk ko ak moom yaar yooyu buñ jàllee ku ñëw laaj la nu muy war a def ci mbir nga dénk ko bu dee lu mu war a def la nga ne ko nii lañ ko war a defe bu dee lu mu war a bàyyi nga ne ko nii lañ koy dañ koy bàyyi fa saasu kon mu mel ne yett la ba yent muy gëm yàlla bu dëgër ak koo ko mën a wàll nga wàll ko ku la laaj nga wax ko la nga ko war a wax yett yooyu bokk na ci yi gën a fës yi ñuy xàmmee ab jullit ak keneen ku dul ab jullit moo tax suñu boroom sax euh, di ko ñaax di ko kañe xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu yàlla boole xeet wi nag du ci melokaan bi du ci lenn lu dul pas-pas bi moo ñu boole ñuy aw xeet xeet bi bokk bëgg nangam gëm nangam rawatina nag xeet wi nga xam ne dañoo bokk ak sayyidina muhammad pas-pas bi mu doon jàngale muy gëm yàlla mi ñu war a gëm ca nañ ko war a gëme ak yañ ca war a jàpp ak yañ ca war a bàyyi te suñuy cër di ko feeñal muy jëfee ay ndigalam ak di bàyyi ay tereem moo tax mu waxoon ci alxuraan ni yéen di yéenay xeet wi gën ci xeet yi foofa nag day mel ne yëkkati ay wagg jaadu na fa mu ne déet du lenn kat lu dul yéen ci seen biir dangeen di jàpp jàpp gu dëgër te fekk muy la ngeen war a jàpp ku ngeen ko mën a wàll ngeen wàll ko ko waaye nag ku ngeen am sañ-sañ ci moom su waree def nga ne ko jógal su waree bàyyi nga ne ko bàyyi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas li ko waral mooy taamuruuna bilmaarufi wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah euh, kon nag ku jot ci bataaxal bi na fexe ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxawe loola buñ toog rek naan diwu ko war a def wala nañ xaar ba diw yëkkati kàddoon waltakun minkum ummatun yad'una ila alxayr wa ya'muruna bilmaaruf wa yanhawna an il munkar li tax umma boobu weesu na ñuy toog di déglu diw ñoom suñu boroom mi ñuy wax ci alquran na inna ibrahima kaana ummatan ibrahima dong dong dong taxawaay ba mu taxawoon daa mel ne ku wuutu aw xeetu la mu ndax taxawaay bu dëgër ak pas-pas bu wóor bu mu téye inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan wa lam min almushrikin yonent bi sallallahu alayhi wa gën koo jegeel si nee na kenn kum doon ci yéen su gisee munkar munkar nag mooy lan ak maaruf mooy lan danañ ci ñëw tuuti waaye ku ci gis ci yéen lu dul noona te am kattan kattan gi mën a dindi nag ci loxo loolu état moo ci jiitu ndax moo mën a xëy rek ne euh, yoon wii ñu doon jaar di dem bu fa kenn jaarati di dem waaye ñiy dikk képp nañ fa jaar loolu état moo ko man moo mën a toxal ci yoxo gannaaw nag état bi ñu nekk du état boo xam ne day déglu alxuraan nee na wala yonent bi nee na faw mu am ñu ko wutu ndax poste boobu munta nekk poste bu kenn jëlu jëlut ñi koy jël si boobaa mooy ñi nga xam ne aw nit dañuy rang ay rang yu gudd ndax bëgg leen a gis ñooñu ñoom ñoo fay wuutu état su boobaa ndax buñ ne kee bu mu agsi bu koo ko bëggee agsi dana xam ne kii doom lu am doole la bu mu agsi mu bëgg a agsi mën naa taseeg lu lu loo xam ne bañoon a agsi rek mooy gën ci moom kon ñooña yan bu di sa ngi leen tiim xaw ma xam nañ ko xaw ma xamuñu ko kon ba ci jëkk mooy ku gis lu dul noonu na ko dindeeg loxoom ñaareel ba ku munta dindi ak loxo nga xam ne kàttanam ak fa baatam aggu fa na reeteet reeteet picc yu sew sewaan yi di naaw euh, danañu rey jaan lekk-lekk walla sax lu gën a rey jaan nuñ koy reyee mooy dañuy def am ndiiraan kii day woo moroomam ñu wootente ñàkkut nu ñuy wootente ba ñëpp daje ñu tiim la ñuy reetaan ba ko xam àll bi boo ko séenee da nga xam ni fële dara nga soo dee jàmbaar nga wutali fa ba xam picc yi luñ diiraan na le su dee ndox suuf la wala leneen jàmbaar yi fexeel mooy reetaan ku ko mënut nag loola naqari ko lool loolu moom kenn amu si ngànt nangam naqari na moom kenn amu si ngànt Eh, man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadi mooy bu njëkk bi fa in lam yastati fa bi lisaani reeteet ko fa in lam yastati fa bi qalbi li tax mu diis nag li tax ma ne ñi ci war a wuutu état mooy ku ñuy ràng bëgg koo gis te yàlla rek tax eh, bare nañu ko bëgg a gis ñoo xam ne lañ ko yaakaare mooy mu ñaanal leen benn muy ñaan ngoo xam ne dalay booleek diw mu dimbali la léegi ci li nga soxla wala mu wéet ak boromam ñaanal la yàlla moo ko yàlla ñu fekk mu xam ne yàlla rek mooy sottal waaye kooku nga xam ne moom lañ yaakaar ci loolu yonent bi sallallahu laa wa sallam wax na ak moom nee na moom yonent bi mu ngi giñ di wax ci tedd ngay ki nga xam li muy wax su nopp su ko sooboon du sotti day jël ba kanam ne faw ngeen di digle su digle ware di tere saa bu tere ware su ngeen nee teg kenn ku di diglu keneen ba boo ngeen séentu mbugalum suñu borom bu leen di yoot te mbugal ma la ca gën a simpale mooy ñaan duutu nangu ñi ki ngay gën a yaakaar di ko ñaan lu ak ñaanam day mel ne am ndox bind ci ndox rek walladi nafsi bi yadihi la taamuranna bilmaarufi wala tanhawunna an ilmunkari aw la yushikanna allah an yabasa aleykum iqaban minhu summa tadcuunahu fala yustajabu lakum ak luñ mën a ñaan nag ñaan jàmm ak ñaan nangam ñaan nangam kenn ku nekk ak soxlaam ak soxla yi nga xam ne ñëpp ko bokk yàlla danaan teg ndax dañu dañu fas yéene ubbi bunt bi ak caabi ji ko war a ubbi muy digleeg tere digleeg tere nag digle maaruuf ak tere munka moo taxoon yàlla yónni euh, téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent ci ay ndaw loolu boo ko seetee lim bu néew la ak boo ko dendalee ak li fi nekk ci mbooloo ci jamono ji ci àdduna bi te moo ne ñooñu seen mbooloo ma ma ngi doonoon diggante anbiya ak mursalu gannaaw bi ay saalixuun ñëwaat seen gannaaw di dox seeni tànk nañu daan def ak lañ daan daj bay wax ak nit ñi coono yu metti la woon fii mu ne nii ci jamono jii kenn rek mën na xëy wax ak àdduna bépp ñu dégg ko mi ngi am léeg-léeg mbir xew moo xam ne fa mu xewe na muy ruqee ñi gën a sori ci àdduna bi mën nañ koo jëkk a yëg sax waa réew mi muy xewe ci seenum rek kon boog aw lay itam day daal di jafe loolu moo doonoon liggéeyum yow ak mursaloon mooy digle ak tere déedéet ak ahakay rek ak ñakk koo defam nag moo gën a nekk musiba moom bokk yi suñ demee ba nga xam ne ñi yaakaar ñëpp ci lijjanti bi àdduna mënatuñ ñoo lijjanti ñu dem wuti ñi nga xam ne ñoom la ñuy yaakaar ci suñu diggante ak suñu borom mënatuñ ñoo lijjanti suñu diggante ak suñu borom te suñu boroom di dégg lépp war si naa seetaat suñu bopp almaaruuf mooy laal mooy li yàlla digle lépp li yàlla digle lépp lu ca sharia andi am na loo xam ne aw nit dañ koy fent te fekk sharia xamu te du ko mas a xaw ndax amut ci néegi sharia yi fenn fi ñu ko fi dugal bokk yi bala ñoo dugg ci tere munkar te mooy ku wax maaruuf safaan ba mooy munkar dañoo war a jàngale maaruuf ba noppi maaruuf mooy lépp li yàlla santaane digle ko teg ca ab yar ku ko defut yar ba dal ko gis nga loola ba ci jiitu mooy gëm yàlla gu dëgër gis nga pas-pas bu dëgër faw ñu jàngalaat ko nit ñi bañ xam lu mu doon li ñuy fas ak li ñuy fecc ndax fii ci àdduna ku fi fasut dara ku fasu dara fas mooy denc dara ba mbir na kët na jonn te fasoo woon doo fecc wolof yi leer faw ñu jàngal nit ñi lan mooy maaruf maaruf mooy pas-pas bu dëgër moo ci jiitu yonent bi nee na rasul amri al islaam li yàlla digal digle lépp ba ci jiitu ca ay jamono yam koy wax ba fi mu ne nii mooy na nit ki dugg ci lislaam ba noppi yàlla soog a wax ak moom ndax ñu nanguwut moom yàlla teg na leen ne nasullah wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum na fi muy waxee itam nasullaha fa fa nasiyahum rasul am mooy dugg ci biir lislaam jaamu yàlla ci pas-pas bu leer bokk yi foofu ku fi tënku mën naa bañ a xam munkar mooy lan bu ñu xoolee mbindi sëriñ bi néew na lu muy détaillé li ñuy tere waaye li muy bind jëm cam di ko leeral nañ ñi mooy li ñu war a def rek li ñu war a def ku ca sax doo xam lu ñu warta def bañ dale ko tere ba ci jëkk mooy gëm yàlla gu wér wa ma umiru rasul amr wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin xunafaa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dalika diinul qayima kon rasul amr al islam wa amuduhu alsalaa wa dirwatu sanaamihi al jihaadu fi sabilillah loolu wax yonent bi sallallahu alayhi wa kon faw ñu jàngal nit ñi loolee dëgg-dëgg mooy lan bañ téye ko ba sax ca su boobaa duñ xamati leneen lu dul luñ war a def waaye iman mooy pas-pas bi may wax rek waaye ci ay waxit ñi fexe ba jàngal nit ñi waxin te bokk yi ñuy jàngale wax nee nañ balaa kenn bala ñoo jàngal kenn wax dañ koy jàngal nu ñuy dégloo wax nu ñuy dégloo wax ni ñuy digloo wax nag bu fekkee ka koy wax ci diine lay wax nañ xool waxam jooju ay nattukaayam fu mu ne ci diine su natt su fekkee kaw diine la ko natt moom amul fenn foo ko mën a jëmale mu jëm fa fu dul ci diine rek waaye su fekkee feneen la jëm nag mën naa jëm leneen rek yow miy wut diine bàyyi ko fa te dem wuti leneen te dem koy wax ci diine kese wa quulu linnaasi xusna nañuy wax nam war a demee rek te teg ko ci ay texte yu leer waaye ay jëf itam lu ñuy def itam bala ko def nañ xam lañ ca teg ndax nee nañ li gën a xóot ci usul mooy lu ne nga xam fa nga koy teg te bañ a jéem a xam loo cay am bul jéem a xam looy am ci mbir mi waaye xamal fa nga ko teg rek Euh, loolu it su weesoo si jëmm ji dafa war a feeñ si sa jëflante ak nit ñi saa booy wax ak ñoom ñi xaw ne yow mi borom pas bu set bëcc nga am na baat bu ñuy jëfandikoo ci munkaraat yi la bokk war nañ koo tere bu soobee diw wa ma tashaauna illa an yasha allah wala taquluna li cheyin inni failun dalika gadan illa an yasha allah mooy bu soobee diw loolu la war a jëkk tere ndax ci munkar yi la bokk bokku ci maarof yi waaye yi nga xam ne dafa dab diine te mënu ko dugal ci benn ci néegi diine yi ci munkar yi la bokk dañ ko war a tere tamit ngeen a gàññi ci jamono ji bàkkaar yu magaale yi yu mag yegg yu ndaw yi waxaale wuñ ko moom yàlla na ñu si yàlla musal su ko defee kon digle ak tere digle mooy digle maaruuf kenn ku dem mën naa dem ca waroom xam-xam yam dëkkal ñu gën ko koo leeralal bu baax a baax a baax a baax a baax waaye gën koo leeral li tax yonent bi man ra am munkar munkar bokk na ci li ci gën a fees mooy pas-pas bu baaxul pas-pas bu baaxul niñ koy xamee day feeñ ci ay wax benn boobu rek la tudd bu soobee diw laa tudd waaye mbokk yu bari la am yu làqu yoo xam ne buñ ci buñ ko feemuwul day feeñ sëñ bu mag bi nag bokk na ci bi muy dénk ñi ko gënoon jege bokk yi su ko waxoon mën nañ koy netti lente muy ruus ñu koy dollee ko wàññi ba ba muy jeex waaye daf ko bind bu yàgg yàgg booba am na jot booba téere bi muy wax al axdar yi laxlar la ko mag ñi gën a xame moom la jël way ko dolli ca loo xam ne nekkul ci laxdar yi ndax li Laxdari yu ni Laxdari yu demee toll ni sëriñ bi daf koo jël tënk ko ci ñaari bunt kuy jàng aljawharu nafis fi aqdi nasri al axdari rais ñaari baabu ndong moo ci am albaabul awal ak albaabu thani la ca des ay fasluñ lañ fasul lañ tudd fasluñ fii lii fasluñ fii laa ñaar fukk ak juróom-benn lañ waaye laata muy agsi ci bunt bu jëkk bi bi muy tamhid lii al axdar yi wax awalu ma awjabahu arrahmanu qataan ala almukallif aliman bi ma doon wax léegi summata maarifatu ma yaslahu bi faraid al ayni jamian fantabih ka xukmi sawmin di ko wax ba àgg ca lii la war a gëm tàmbalee ko teg tànkam fii teg ca lii teg ca laa daf caa boole digleeg tere digleeg tere nag ba mu koy laata def ay tomb yu leer daf ne bul ca xool ku la neex ak ku la neexut sax boo ko war a def ko ndax neex ak naqar yi li tax nit ki di neex nit na bokk ak moom pas-pas rek su ko dee wan gannaaw it ba ba muy wàññiku na ko xool xool mu doon koo xam ne la ko dal mënu ko dindi ci ci loxoom mënu ko dindi ci làmmiñam munu koo ci ñaar yooyu mu naqari ko tax mu fañ ko ab diggante ba xam kooko dana dëppam de wa an yuxiba lil ilahi dil anaam saxsan wa yubrida lahu la lil xotaam daan ne digleeg tere nag am na ay charte charte yooyu lu ñiy digleeg a tere ëppante doole ñoo te yam kepp li ñuy ëppante doole lépp ba kii mën a dindeeg loxoom kii mën a reeteet li ñuy ëppante doole lépp ñoo bokk benn nattukaay bi nee na kiy digle na xam munkar dëgg dëgg dëgg mooy lan xàmmee ko soog koo tere te tere gam koy tere mu ànd ak ab yar ak i teggin ak xikma ak mawida xasana mooy bu gisee munkar nit di ko def na ko woo bañ wéet ñoom ñaar mu leeralal ko lii mu nekk lu doon bu xamee ne mi ngi tàmbalee déglu mu daal di potoxlu foofu rek daal koy digal lañu war a def lu mu waaye nag ku ko def danañ jaar ak yow fii danañ jaar ak yow faa du aw yoon jaaduwul moo tax mu ne na doon ku xam mun kar bi muy bëgg a tere lum mu doon te tere ga bañ a indi ab safaan mu bañ a gën a tasaaroo ndax am na yoo xam ne ku ko tudd lim ko ya nga limut yëpp daa dagan yi nga yi lim ne yi baaxul ya nga tudd dafa dagan da nga ko daganal dañuy dugg ma famul sart wala ma famul mu baax mu xaalafa bi kon bokk lu mat a tey la mat naa togg ba mu ñor xom moom lay wax ne an yakun ay an yakuna aaliman bil munkari aalim xam lii fii mu toll xam fa jëm la cay mujj lépp ak nam koy nam koy teree walaysa mufdiyan li charrin akbar dund loo xam ne su ne dama koy tere mu gën a tasaaroo far ñi ko xamutoon xam ko ndax léeg-léeg ñu lim loo xam ne am na ñoo xam ne keroog la ma sa dugg seenum nopp xami woon ne mi ngi am dañu ko kumpa musiba daal tàmbalee am moo tax réew sàngam bu ñu bëggee tere yenn dara dañ koo daganal ndax boo koy tere nit ñi daal koy wuti ci suuf ba xam lu tax ñu di ko tere waaye su ne fàng biti boo dem ñu jaay ko fa dootu am benn valeur ña ca doon business di ko nëbbu naan nii la baaxee naa la baaxee dootuñ ci am benn lay wuñ koy jaayee nit ñi njëg gu cher ñoom lañ daganal baaxoo waaye foofu lañ ko jaar dañ ko banaliser baat boobu lañ jëfandikoo ba mooy ki jël responsabilité di digle doon koo xam ne lu mu digle ñu def ko bu doon kuñ déglu ñu def ko bu doon kook mënut ta tere ñu bàyyi ba noppi li muy tere doon lu ñu mën a bàyyi am doole ji ba noppi la may tere doon lu ñu mën a bàyyi tam tàmbalee ko ci boppam moom dikk ko bàyyi ndax téere boobu ma tudd ci njëlbéen nga def ne bu xamee sart yi mu tuub la weesu tax ñàkk xamam taxaw sart yi daf ca tudd réccu kiy digle daa war a rëcc moom ci boppam bu fekkee defoon na mu fas yéene tànkam du ci tege mu te ku am ci yow baat du ko fi teg mu sa koo jéer ci mbedd mi am kattanu mën a digg la ñu def am kattanu mën a tere ñu bàyyi te la ngay tere ñu mën koo bàyyi ci misaal ñun ñëpp xam nañ ne li ëpp ci waa réew mi euh, seenub añ la muy doon ñu bare ko bokkule amul ku am ak ku néewle am na plat boo xam daal ñëpp ca daje moom ñi ne Sénégal ak ñi nekk bitim réew ay Sénégalais ñëpp ko xamandoo waaye tey ku amoon kàttan ba ne ku koy jëfandikoo ti bul ko dànk xam nañ li muy tere kenn mënu koo bàyyi waaye mën na leen wan yoon woo xam ne dañ ko koy jëfandikoo te doo ko ci dànkante day génn ci télévision yi nga xam ne ak internet bi di ko wane. waaye koo xam ne bu nit ñi lekk bu fi nit ñi nekkee sax balaa lekk di du muy wala leen gannaaw kooku mënut a jàngale aw lekkin aw dànkin mënu ko jàngale wa an yakuna qadiran zul amri ala al izalati bi gayri nukul dal ne nag na ngeen xam ne digleeg tere lu mat a teeylu la ndax saa diglee tere nga safaan ba waaye saaboo boo tere safaan ba it digle nga safaan ba moo tax ñu mat a xàmmee te yëkkati ci kàddu ba noppi melut na mu war a mel yàkkamti dana ko waral nañu war a jëkk jàngal nit ñi pas-pas maaruuf ak i bokkam ak jëfe ko suñ ko mokkalee ba tàmm ko du tuñ dem ci leneen su fekkee wax ko ñu dégg ko mënta ñàkk nañ leen jàngal munkar dëgg dëgg la ca nekk ci ay mulaabasaat ay négatif li muy yàq ak yàq nga na mën a lawe tey fii ci àdduna jëm àllaaxira su boobaa ku amum xel te tënk woon lu néew néew ci maaruuf pas-pas bu dëgër dutu ko def euh, moo tax mu ne waalam bi ann al amra wa nahya jalaa baynahuma talaazumun te amala settantal leen bu baax loolu yëkkati seen kàddu fa man naha an ay cheyin qad jara fa innahu bi aksi qad amara ku ne ku solut mbub mu weex bu mu fi jaar da te tere nga euh, ñu sol meneen bu mu weex nga digle dangay nga digle da tere da nga ne ku sol bu mu weex bu mu fi jaar bu mu fi jaar da tere waaw kii agsi woon ci bunti ba noppi nag te yëgu ko woon te mënu faa ñàkk dugg dikk na bu ñu ëpp soluñ bu muy weex faw ñu forcé bunt bi dugg ndax mënuñoo ñàkk dugg coow la bari moo tax da nga naan barab sàngam bala ñu faa dem nañ sol lu jot rek muur fii muur faa kese doy na couleur ba amu ki solo waaye saa boo tuddee couleur yi détaillé ko rek indi nga fitna joo xam ne dootoo ko mën a faj ndax nit ñi ñooy tànnal seen bopp ku ci dem ca jaba bu fekkoon yaa leen jox yére yi ñu sol moom tàntaan bu fekkoon ñëpp yaa leen jox lu ñuy sol mën ngaa xëy na bu fekkoon saret yére lu dul lu weex waaye gannaaw ku ne dem tànn ba mu bëgg ñëw la ko na ko soxla daanaka tere ga amatul njëriñ moo tax kuy ñëw na sol mbubb mu mel nangam tàmbalee ci wagg yi ba ci wëq wa doon mbubb mu yaatu te bañ a yaraax couleur bu mu doon baax euh, moo tax sëñ bi ne dànkaaf settantal leen ko bala ngeen yëkkati seen kàddu ñu naan dañoo jëfewut la mbaxoon te fekk la nga la nga digle la kër mënut def la ngay tere la kër mënut a fa man naha an ay shay'in qad jara fa innahu bi aksi qad amara bu fi kenn jaar te solo mbub mu weex mbubb mu weex am na ñoo xam ne couleur bu weex neexu leen neel nañ sol mbub mu mel nangam rek te bala nga ko yëkkati na nga fexe ba ñu ëpp mën a am mbub mel noona te nga teg ca fab ay teg ay ay piis ci pegg bi di galaate ay yére su ko defee kon digle ak tere yàlla nañu ko yàlla déggloo waaye li ma ne nattukaay bi sëriñ bi joxe na xàmmee li muy tere ba bañ a digle bis lu ñu warta def ndax yaa yore kàddu gu yaa war a wax yaa war a wax ak yaa mën a wax bokkuñu euh, ku jàng fiq danga nga ci gis ba tàyyi bi zikri wal qudra xam ko man ko bu ñuy wax ginnaaw wax laa tudd nañuy natt ñuy wax ñum doon ba xam xam naam déet su xamee ba noppi ñu xool ba xam ku ko mën a wax nit ñi bañ dégg ko la wala déet su dee ku ko mën a wax bañ dégg ko la ñu nattaat ca ba xam moom ndax ku saf nit ñi daan déet ndax léeg-léeg nit ñi duñu am soxla ci li muy wax waaye kii wax moo leen di saf moo leen di neex su loolu weesoo ñu xool ba xam moom lii muy tere nu mu ca def ndax bàyyi na lépp wala déet wala lii muy digle doonte feesal na nattukaay yi xam na mën naa wax saf na nit ñi nañ xool ba xam li muy digle mi ngi koy def léppam de ak li muy tere ndax bàyyi na lépp wala déet loolu nag siriñ bi nee na nattukaay yooyu ki am kàttan ba sañ ko ba jox ko sañ-sañ bi ak ki ko amul ñoo ci yam ndax kenn ku ne am na fu mu toll kenn ku nekk ci biir këram nga nga xam ne moo leen di jox ñuy dund ñëpp moom lañ yaakaar bu mu xaar kenn na tàmbalee si ñoom na muy tàmbalee si ñoom nag bu dee lu mu bañ ñu seetaan ko ci télé bi bu mu dem couper courant bi walla sax mu bañ jënd télévision far waaye nay fexe ba waxtu wa war a seetaan télé bi moom mu tàmmal leen ab jotaayu boppam boo xam ne kenn du tal télé dañuy fa duñu xam sax télé far fexe ba minal leen boppam ñu miin ko ba suñ ko gisut mu manqué leen ñaareel ba it mu amal leen njariñ ba ñëpp rus ko ba ku ci mag mu am xel bu la teree nga daal di bàyyi fa saasa ndax rus nga mu gisate laaj su dee jigéen gi leen jur nam defoon ba muy ngoro buy dem dana fexe ba neex a xool dana fexe ba waa kër ga so nangul ko kami fekk du ko wax baat bu baadoo la du fa def yëfi baadoo la ba mu fay jóge loolu su ko dëkkee ak waa këram lu mu leen wax danañ ko def waaye su fekkee nag dangaa daj lu baree bare bari ba nga cay laata jot joxe lu bari bu ñëwee yit ca la ko neex dong lay nekk doo ko mën a digal doo ko da koy neex rek yàlla koy wàññi rek su ko defee nag yow soo bàyyee lu mel noonu ba naa fi bëgg a génn ci mbedd mi naan ku ko def ñu def ko ñu def ko naa coowoo nar a bari rek fukk day gas téeméer di suul fukk day day gas téeméer di pën day bari waaye sol waaye pax du gaaw a am su ko defee kon yu bari bala moo jógati maa ngi koy tàmbalee ci woroom kër yi ba ñuy xaatar xaatar yi di jaay yu amul naan man nangam ku ko def génn sama kër ba ñéeg ca am na ñu ne woon siiw génn kër gi dañ cay daal di jaar moom te yaa waxoon alxurru xurun ma lam yatakallam mu ñàkk te nit du dem ba jigéen du dem bàyyi fa doomam doomam boo ko jëkkee doo ko mujj buy màgg di fekkee ay bokk su ko defee rek loolu day daal dugg ci munkaraat yi mun munkar mooy pas-pas bu baaxul li muy wax gëmu ko gëmu ko daa bëgg diw dégg ko rek ne la nga waxoon maa nga ca rek waaye gëmut li muy wax dara kese te fa laysa yugnika rida alxalqi ida lam turdi mawlaaka faxid an dalida wala yadruka ida ardayta mawlaaka suxtu man lahu asayta kon nañ yeesalaat pas-pas yi te jàngale pas-pas lu mu doon munkar ba ca yées mooy pas-pas bu yàqu te day law lawaale ñam dëkkal ni lu baax di wallaatee ba ku baax boo dëkkeek moom daal di baax léegi noonu la munkar di wallaatee dañ koy wax di ko wax ba miin ko ba safatul dara ñëpp daal di cay bokk te kenn ku nekk bi mu koy wax kontóoru lam façon ma ngay fàcc ko ku ko wedde rek na jël ci téléphone def ci lu bari jaaxaan rek ku xelam dem rek mu woote day woote rek ñu ne ko jeexal nga lam daan wax yàlla yàlla nay farata yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp te mosuñu seetaan nekk bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li